CEDEAO wax par rapport ak le parrainage euh, lu euh, opposant yi wax par rapport ak le parrainage et même l'article 98 de la constitution lu mu wax euh, ci justement peut-être cour de justice la CEDEAO su xasee ba jël dogal ni ñu ko war a parce que c'est au-dessus quand même des lois loolu yëpp qu'est-ce que ça montre Serigne Saliou le 22 avril 2021 avec de 32 pages ci gën a essentiel li CEDEAO wax dane le parrainage viole le droit de la libre participation aux élections et le secret du vote leer na mhm. léegi nag CEDEAO jox état Sénégal six mois pour ñu réformer loi bi réformer waaw dindi non moom la réformer lu wax kay réformer waaw mais six mois sont écoulés l'état Sénégal ne l'a pas fait est-ce que xam nga dans le langage international quand un état ne respecte pas les lois internationales on dit que c'est état voyou mhm. un rogue state moom la ñuy wax Sénégal dañ koy classé foofu parce que amul décision bu jógee CEDEAO boo xamante ni ñoom buñ ci gisul seen bopp duñ ko respecté et loolu il faut remercier Maître Tine qui a porté ce combat. Mhm. parce que moom sax il était en procédure d'urgence gars yi ko déedéet mais par la suite ils lui ont donné Mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu, avec ce parrainage-là, au point que Macky Sall et ces pas réformer la loi loi boo xam ne ba ñu koy voté la ville a été quadrillée comme un état de siège parce que benn loi la ñuy voté sur le parrainage on a quadrillé ce jour-là ñaata opposant la ñu jour boobu

parce que aussi lu xel mënul nangu mooy daf ci am ñoo xamante ne nii dañu ñëw ci langue politique gi am parrainage ñoo xamante nii ñi ngi sur le terrain parce que man je n'ai jamais pu comprendre te loolu kenn mënu ma ci convaincre comment se fait-il que un Madické ni appareil politique ni absolument rien ñëw comme ça présenté wu am des parrainages au détriment d'un Bougane Gueye Dany qui a fait le tour du Sénégal am am mouvement bu taxaw d'un Malick Gakou am mouvement bu taxaw ainsi de suite ainsi de suite ñu ne kii am na parrainage kii amul et finalement cinq yooyu nga xam ne moom la bon Abdoulaye doon waxoon ne ci cinq la ñuy cinq yooyu ca lañ mujj. mu tey xel nit ñi léegi mais qu'on nous explique et puis bu ñu waxee système bi nga xam moom la conseil constitutionnel dégg naa di kii yëngal seen machine boobu rek ñu ne ñii ñii et cetera mais ça ne se comme ça te dañu waxoon nañ ñu ne ku ci parrainé deux kii mu am doublon day tegu sa <laughs> loolu la on l'a jamais mis en application xam ci ñoroon évincer des candidats moo tax c'est une loi d'éviction comme l'a dit maître Tine c'est une loi d'éviction il tey bu fekkente ne et là j'ai entendu Amadou Gueye de l'UNIS qui a vraiment bien réfléchi sur la question mu ne suñu permettroon au moins benn candidat mën a parrainer jusqu'à deux ou trois en ce moment-là on ne le secret du vote mais man tey su ma taxee ma ne Benno laa bokk wala ma ne APR euh, euh, APR euh, comment dire laa bokk tey su ma ñëwee waa APR ne ma kaay parrainer ma ma ne maa bañ maa bañ bala ma lay parrainé wala ma parrainé kii ba pare peut-être pour yàqal la ma parrainé kii mm. mais c'est comme ça sa ça se passe bu fekkonte ne loolu réformé woon nañ loi bi acteurs du les acteurs du jeu politique dal nañ ci ànd mm-hmm. mais malheureusement on l'a pas fait. non mais may may may may la loi est modifiée quand même. may may ma rek waaye may ma rek tamit rek xafoon xam nga aussi yow. non man dama bëgg a déglu ba pare xam aussi may ma xam waaw pour préciser la un peu dans l'histoire aussi. xam nga yaa ngi vous parlez de 1963. non non non 1963 parti unique may ma rek 1963 parti unique moo fi nekkoon. Senghor moom ba mu faagagalee Mamadou Dia il a fait de sorte que kenn dootu falu ko dul moom. kooku aussi il faut ñu wax ko par la suite. d'accord il y a sa ce il bu Senghor bi mais c'était un parrainage antidémocratique et loolu des gens comme Abdoulaye Ly dañ koo xeex ba dañ koo xeex ba dee dañ ko xeex. voilà même si par la suite il des gens de pra yoo xam ne dañoo ils ont rejoint quand même l'UPS mais Abdoulaye Ly loolu daf ko xeex. d'accord waaw affaire Khalifa Sall bii nga doon wax léegi. Mm-hmm. mais yow nee na boo su man sama discours j'ai toujours été constant. man nee naa la xalifa n'a jamais perdu ses droits civils et politiques. Mhm. mosu ko perte. Karim Wade n'a jamais perdu ses droits civils et politiques mosu ko perte. le juge magistrat Yaya Dia qui faisait partie des des, des juges de la CREI. Mhm. moo fi def benn tribune fii génn wax fi daal ne Karim Wade n'a jamais perdu ses droits civiques. parce que la perte des droits civiques c' une peine. complémentaire qui doit être par un juge te gis nga c' dans une temporalité. dañu naan la perte nga say droit civique pour cinq ans période bi wala bi mais pas ad vitam aeternam mm-hmm. en France quand le problème s'est posé on a donné raison à je ne sais pas c'était un sénateur bu nekkoon je crois euh, dans les îles françaises finalement il a eu raison sur le conseil constitutionnel français et là les gens ont finalement modifié la loi dans ce pays nag le problème qui se pose moi di comment se fait-il que ñu ne de euh, ça doit être une peine complémentaire mhm. boo gisee article yooyu nga léegi vingt neuf euh, vingt huit xaw ma vingt neuf trente boobu. L parce que bu fekkente ne code pénal bi dafa wax lii ne nit kii nii lay perte ay droits civiques pour euh, être inéligible code bi daal di ñëw comment le code électoral ñu wax leneen. moo tax ma ne loolu dañ ko war a attaquer de je ne sais pas si les gens l'ont fait ou ne l'ont pas fait mais dañ ko war a au niveau de la cour suprême parce que ce sont des articles inconstitutionnels li code pénal bi wax loolu moo loolu moo am cest dire que nit ki mënul perdre ay droits si yoon te d'ailleurs Siri Kaba bi ñu defee le procès de Karim Wade ba pare ba mu génnee def conférence de presse à l'époque c'était lui le ministre de la justice garde moom c'est n'a pas perdu ses droits civils et politiques. d'accord par la suite nag affaire caay caay bii sax Omar doon wax moo ci dugg. Mm-hmm. ba nag am un ministre de l'intérieur ne coomet jël ay mbir dugal ko ci biir code bi te loola mosu yoo nekk mosu ci ne. électeur boobu mosu ca ne. dañ ko caa dañ ko caa ah, dugal dañ ko caa dugal. d'accord donc moo tax ma ne mbir mi xamal pour lan la am na ay ñoo xamante ni Macky Sall bëggul jàkkaarloo ak ñoom nañ ko wax <laughs> bëggul jàkkaarloo ak ñoom. il faut aussi ñu utiliser soit justice parenage jël teg de côté te loolu moo fi am gis nag réew mii nañu jàpp ne xam nga li ma wax Abdou Diouf loo ko mën wax mooy Abdou Diouf n'a jamais dit ab Abdoulaye Wade mën na perdre ay droits civiques te nag dara mun woon empêcher Abdou Diouf à l'époque avec ses magistrats mu def lii nga xam moom la mag Sall di def tey Abdou Diouf xalaatam contre Abdoulaye Wade musul egg foofu te xam am loo xam ne aussi peuple bu buñ ko soxlaa nga ne yow du am c'est-à-dire finalement tu es peuple moo tax ma ne ñoom Khalifa Sall yii ak ñoom Karim Wade ils n'ont qu'à se présenter parce que man ci li ma jàpp man te loolu moom moo mës a nekk sama discours je suis constant là-dessus mësuñu ko perdre laa la wax code électoral bi moo baaxul parce que c'est un code boo xam ne en tout cas ces articles là sont des articles inconstitutionnels yoo xam ne ni méngoowuñu ak li nga xam moom la code pénal bi di wax mhm. te loolu yéen acteurs politiques i war ngeen koo xeex. c'est une peine complémentaire qui doit être prononcée ah. par un juge je pense que c'est euh, c'est très clair alors ma jox la euh, Omar Faye laata may ñëw ci ci Abba sur le parrainage. et euh, d'abord sur le cas. parce que xam nga xam mhm. il faut que ñu vider problème yi. mm si on veut aller vers des élections calmes apaisées. Mhm. parce que kaawu Karim kaawu Khalifa. ça doit être réglé sëriñ dugg ne léegi ci droit du ma ci dugg mais en terme de gentleman rek d'abord humainement en terme de gentleman que le président sur ce dossier là sur ces dossiers là daf ci war a jouer un rôle de gentleman un non seulement ce qui le liait à Ablaye Wade c'était fort humainement et ce qui le liait à Khalifa Sall avant qu'il ne soit au pouvoir et malgré tout ce qu'ils ont donc tey war na mën bu demee toog si médias internationaux yi léegi Cheikh Omar wax na ko ne man je vais admissier ak quel que soit alpha il doit aller jusqu'au bout de sa logique même si aujourd'hui waa kër Khalifa Sall bu ñu ko bëggul woon Karim euh, waa kër waa kër euh, comment je waa kër euh, Karim Wade bëgguñu ko mais c'est une demande du peuple yéen mën nga ñu am seen position d'accord seen principe seen honneur et tout mais ñun ñoo xoolu loolu ñun askan bi bokk ñun ñoo bëgg Khalifa ak Karim bokk élection pour que réew mi am jàmm parce que daf ci bokk keroog bu ñu gagné Coupe d'Afrique tout le monde était là ñu savouré ko mu neex ñëpp kontaan te ci biir loolu li ñu bëggoon mooy demee que le président au moins pose ay actes et c'est lui qui doit poser des actes c'est lui c'est lui le président de la c'est lui qui doit poser des actes actes yi mooy bu waxee dara mu dem jusqu'au bout de sa logique même bu ñu ñu fi sujet sax. nga ne man au nom de la concorde nationale je suis prêt à me pour que véritablement Seydina puisse retrouver puisse retrouver le, le droit civique et politique te loolu dañuy ñaan ci dans le cadre des concertations parce que ci concertation la woon bu ñu fàtte ne président oote na fi concertation PDS bañ a dem waa kër Khalifa Sall bañ a dem après dañu waxtaan ku nekk bàyyi du les accepter ñëw ñëw retrouver wu ñu waxtaan na ñun suñu li ñu bëgg mooy. kii di Karim Wade génn kii Khalifa génn que les deux puissent retrouver leur leur liberté mais vraiment yooyu bu amee ba ñu def dans le cadre de concertation. ñu def ko ba waxtaan ko tey war na am aboutissement aboutissement mooy au moins xaw ma yan pexe lañu war a mën a teg mais pexe am na pour que ñu toog waxtaan pour que élection législative yi ñu bokk parce que bu dul loolu fa ñu jëm du baax. parce que bu fekkee ne aussi le président ne veut pas. Mm -hmm. que ces deux-là aillent mu am ñoo xamante ni bëgg nañ ñu dem mais nañ ñoom fekk si waaye Yewwi ànd ak ñoom xeex ko pour que ces deux-là puissent trouver leur liberté aussi parce que ci réew mi nañ bokk te bëgg nañu bëgg nañu jàmm ci réew mi jàmm nag aussi ci nguur la war a commencer moo tax xawma ban pexe lay def bu defee pexe aussi askan wi dinañ ànd ak moom accompagner ko pour que les deux puissent retrouver leur liberté puissent aller aux élections loolu président ci boppam ñaan nañ ko à ce que moom mu def ko parce que loolu c'est une demande sociale autant bi xaali bi bi bi bi Ablaye Wade daanoo que ñu ñu auditer sa gestion a été une demande sociale autant aujourd'hui le cas de Khalifa que ce quoi ñu constitue aujourd'hui une demande sociale pour le peuple parce que ñun jàmm lañ bëgg parce que l'histoire des contestations électorales vraiment sonn nañ ci comment peut-on régler aujourd'hui le problème de mandat du président avec cette clause d'éternité, alors qu'on ne parvient pas à régler définitivement le problème du fichier électoral, le problème du, du processus électoral et tant d'autres. Mais nous sommes dans le bëgg nañ ci génn léegi Sénégal war nañ mën a organiser élection ba mu jeex te kenn du kaas te il faut qu'on aille vers ça. naturellement pour l'histoire maintenant du parrainage. Mhm. Xafoor loo gis day dem ndànk-ndànk ndànk-ndànk France sax bi ñuy teg système parrainage xëy ñu xëy suba rek imposé dara def nga élection locale. sans parrainage. nga ne da nga dem législative xam nga dara du ko justifier te sa présidentielle mu nga ko def. Mhm. local ñëw nga def ko. législative boo ko defee sa def nga ko. Mhm. mais da nga bàyyi législative. da nga bàyyi présidentielle. jeu local il a été averti d'une part. il a perdu toutes les grandes villes yu bëri. loolu moom nga bëgg a ñëwaat législative. teg teg mais bien sûr. ça va semer le doute dans l'esprit des gens. Mhm. alors qu'il y avait 3149 listes. ci élection locale yi et ça s'est bien passé waa léegi aujourd'hui pourquoi on veut maintenant après les local ñu bëgg a ñëw taxaw ne dañuy indi parrainage pour les législatives mais Amar maintenant loolu nag pour ñu def ko Abdoul mbay lu mu wax am na solo xam nga aussi dañuy wax rek mais on a une opposition tamit responsable hmm. véritablement bu situation amee avant ñu oote génn oote mobilisation oote lu nekk dinañ au président pour que ñu qu'on aille vers une concertation. Mhm. il faudrait pas aussi sur des questions électorales pour que le président soit toujours allergique. Mhm. à un dialogue ou à une concertation avec les avec les principaux acteurs ça aussi c'est un problème. Mhm. te tey boo leen déggee ñu wax nee président ñu ñaan nañu audience ñu ñëw toog pour que ces contentieux là puissent être réglés. une bonne pour toutes. et ça c'est légitime te il faut qu'on aille Alors Abba, est-ce que euh, vous êtes en train de préparer la base euh, pour euh, euh éventuel parrainage tey jii non ce serait enfin jarul ko parce que notre coalition n'en a pas besoin parce que aucun de nous n'a un problème de parrainage mm-hmm. Khalifa Sall avait le parrainage Ousmane Sonko avait le parrainage donc euh, amuñu problème parrainage mais parrainage j'aimerais revenir sur sur benn affaire bu nga xamante ne parce que parrainage dañ ko construire sur, sur des sur des mensonges ni ma baal si bi parce que tey aujourd'hui on peut toujours faire aux Sénégalais croire aux Sénégalais que les élections coûtent cher ñu ngi génne élection y avait plus de 3000 listes ça nous a coûté combien ça nous a coûté 18 milliards c'est c'est même pas le tiers du budget du maire de Dakar vous vous rendez que ces 500 locales là vont exécuter des milliards et des milliards et des milliards de budget des milliards et des milliards de prélèvements de taxes et d'impôts les Sénégalais